boutique euh, solution euh, Baye Assane Mesere am ay garab yoo xamante ne ni macha allah Sénégal yëpp ne waaw euh, comme ni nga ko baaxoo di defee rek mooy solutionné daanaka bépp jàngoro bi nga xamante ne ni garab yaa ngi fii te muy fàcc. ñoo man di Sénégal luñ la wax li la wax mooy liy am si kàttanu sunu borom ndox mi faj ba nga wér si kàttanu yàlla. Hmm, am na hémorroïde si kàttanu sunu borom hémorroïde bi da lay faj ba nga wér. néew kàttan. bàcc mu leer naññ naññ naññ. si kàttanu yàlla. autoroute plus. autoroute jël si leen ko lu mënta ñàkk la ci ak góor mu gànnaa yow ko. Ah, li nga xamante ne moo di asthme. asma it lu mënta ñàkk la si góor wala boog jigéen mag wala boog ndaw ku ko amee si kàttanu sunu borom nga yor ko saa boo fàttee rek boo ko jëlee fàttartiku dem dox say soxla. <laughs> <laughs> ballonnement. ballonnement it am na fii si bitigu solution yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen a tegale ay lekk yu bare bare bare bare fexe leen am ballonnement. ballon <laughs> li nga xamante ni moo de estomac. estomac it ñëw leen yéen ñi bëgg di tàq tàq di maccaat. di tàq tàq. di comme hmm. si comme si comme si. comme si alaas mi xam na comme si yàgg naa comme si li xaw ma. confi luy comme ko daal. confi alaas mi daa comme si. man kay comme lay laaj mooy lan man kay waxuma ne dinaa dëkk kii mais balaa may wax ne dinaa lii wala laa damaa xam li ngay wax. comme si comme si mooy. waaw wut ab biteel biteel bii nii. Hmm. nga jënd daqaar. sol ko ngay wax. non njambaan buy lañ koy def buy. déedéet daqaar ak yooyu yëpp dafa am njambaanu buy am. njambaanu daqaar ak kaane yooyu yëpp. confit loolu laa ko wax de loolu comme si la tudd. njambaan du la. luy confit. yaa gën a xam ek yow nga may ree li ma wax mooy luy comme si <laughs> luy comme nga naan ko comme si <laughs> jàmbaar jàmbaar lay wax mën na njambaar buy laa si xam dafa am njambaar am njambaar buy waaw euh. ah. ah. moom ngay def ay kaane euh, kecax def si euh, sobleeg paañ ak yooyu yëpp jaxase hmm. di tàq-tàq waaw kooku yi nag képp ku ko bëgg di def estomac bi ngay jël si solution da nga tàq-tàq ba sa xol sedd mm. solution plus daw leen ngeen jël si ko yow mii gis mbaax muy metti wala sa biir di metti mm. boo ko jëlee da nga tàggoog moom garab bi di faj xatank yi xar daw leen jël si ko wala boog ay góom ngeen tàggoog moom si kartanu yàlla raay mu sedd guyyu bu leen bàyyi fenn fenn fenn fenn mm-hmm. ñi nga xam ne dañuy tuur ndox guddi waaw si loo yëg da ngay taal sa lampe daal di dem sawi ñëwaat fay sa lampe te di nelaw. eh waay leer na ba noppi ay ca numéro yaa ngi noonu di affiché ci ban ban écran bi eh, ñi nga xam ne nag ñoo ngi fii ci biir eh, Sénégal suñu bëggee jokkoo ak boutique solution dañuy daal di ñuy contacter rek ci 78 426 66 77 78 426 66 77 wala nga def 75 630 50 50 75 630 50 50.